waaw lii lan la lii fu mu fan lañu ne ñun. lu dafa ñaaw nañ waxante dëgg dara mënu ko justifier. Ah! <laughs> xoolal ma xale bi sol maillot Sénégal bi ci ginnaaw kii moom dalee leen moom ay waajuram dootuñu am dara dara dara ci moom kii dee na ba pare xool ko. man du ma ci sori nañ dem seeti Viviane waa Viviane lépp li nga xamante ni ñu ngi ko yëkkati di ko teg ci sa euh, der bii di lu bon baalu ñaaw loo ci wax mu ñëw wala. man na ñëw. dafa ñaaw nañ waxante dëgg dara mënu ko justifier. waaw léegi li ma lay laaj mooy ñoom li ñuy wax yow yaa ngi koy yëg wala yëgoo ko. nañu noppalu. ndax yëguma ko. Mm-hmm. lii nañu mën a wax ndooy. ah ah ah, ah, ah, ah ma yëgoo ko waaye xam naa dugg na la nag moom. Mm-hmm. dugguma. Mm-hmm. non stress laay dund yëgu ma moment. waaw Vivi fan la askanu sunu gaal toll léegi. ci affaire wéet ku wéet xam sa bopp loo ci wax. kan wi Sénégal toll léegi may ñaan rek yàlla na yàlla yokk jàmm si Sénégal ndax fi mu nekk nii dëkk bi tas na. dëgg na de. waaw waaw taxawal taxawal dafa mel ni yow rek toogoo yaa ngi toog ak Pape Cheikh Diallo wax ji Viviane di wax lan la def ci yow neex na la wala neexu la. ngay waxee daf ma neex maa ngi bëgg a jël chaise bi teg ko sa wet. <laughs> Pape Cheikh ci télé nga nekk de ci télé nga nekk. baax na nag. yàlla baax na ci tele laa nekk daal àdduna amul solo. <laughs> Pape Cheikh yow moom ak luñ la mën a waxal moom bari jàmm moom ci la bokk macha allah ree rek xool ko. tànk. <laughs> waxante dëgg dara mënu ko justifier. waaw Viviane yow moom wax dëgg yàgg ngaa def musique kon war nga mën a conseiller xale yi ci musique musique boo koy def looy def. musique la ñuy def. du dëgg. Mm-hmm. dañuy def musique xale bu ndaw bi gën a ndaw xeebu ko. Mm-hmm. voilà musique boo koy def da ngay am ouverture mhm. da ngay gëstu mhm. da ngay xool li xew nga ne ci biir donc Vivi yow léeg-léeg boo génnee xale yi daw topp la mag ñi ñëpp di wax tata Vivi maam ba bàjjen Vivi bu boobaa nooy def moo tax tey bu ma génnee mhm. euh, gis leen ñu ñëw di photo ak man mbaa ñu may nuyu. Hmm. mbaa ñuy ah xam nga. daf may mais mais damay kontaan. parce que ñoo bokk ndey ak baay. damay kontaan pi honneur lay doon ci man. waaw kii ñuy seet nii moom nee na Viviane rek mooy idolom Aïcha Koné lay wuyoo Aïcha Koné li ma lay laaj mooy ah Aïcha li may dégg ndax dëgg la ku ne xam na ni Bouba nduur mii ex Viviane la te nee nga mooy sa idole da ngay génn ak Bouba wala déet man question bi c'est simple. tontul. problème yaa ngay démarrer la problème yaa ngay démarrer. bu ma génnee Bouba nu ma génn ak sama papa. nga ni boo génneeg Bouba Ndour génneeg sa papa lu tax. Ndour sama papa la déjà pour ñëw si place place Viviane Viviane sama yaay la alors euh, nekkuma pour euh, ñu ne Viviane ndax dina ci mer wala dara Viviane c'est une maman. dafa ñaaw nañ waxante dëgg dara mënu ko justifier. Bouba Ndour am na loo fi waxoon ne nga ni trois semaines ci ginnaaw nit woo na la di la wax wax lan ci affaire xale yu ndaw parce que yow it <laughs> il faut nga wax. ma kii ma ne ko bés boo ma oowatee daan ma wax nañ ma ni duñ ko digaale ma. ñëw ça c'est bien. waaw waaw léegi lan moo tax nga wax ko loolu parce que. oui. tu je refuse nekk si benn benn benn environnement bu bu bu bu négatif boobu di polluer sama life. Mm. donc damay jéem parce que moom rek moom ma ci mën a génn. Touba yow kilifa nga. duma la dagg xam nga nu may def développer rek waxal ci mbir mi mu leer. que il faut que nit ñi aussi ñu ku nekk te loolu boo ko defee nga kii eh, inculquer ko sa bopp jëf naa boo amee soxna dina dem ba topp la ci loolu soo amee doom dañ dem ba toppale ci loolu. am nañ ci benn responsabilité mm-hmm. personnelle. parce que boo bëggee téye géej gi nga bëgg ko téye ak say say loxo mënta ne. Mm-hmm. affaire bi daf ñu ëpp doole dootul wàññeeku c'est la réalité. quel que soit discours lenn rek la ñu mën a def mooy que si suñu comportement personnel quand même ñun ñëpp ñu convoqué ko waaw baax na léegi nañu wax ci affaire wujje nañ dem Fama yow leer na tey jii yow sa wujju war nga ko mën a jàppale war na mën a xëy liggéey bàyyi la ci kër gi nga geere exemple la rek bul joxe exemple ci man waaw <laughs> oh, waaw yow nooy ah waaw yow léegi lan moo tax nga ni duma jox la joxe exemple ci moom moom lan la tal. bàyyi leen ko rek muy werd bàyyi sama jëkkër muy werd xamul loolu. lii nañu mën a wax Ndoye xam na doxaan wala xamul doxaan sa boroom kër maa ngi jégalu ci kàddu gi nag. moom xamul loolu. waaw baax na xoolal affaire wu jég yooyu nan ko teg fële te dem seeti selbe Ndom Selbé am na lu maam yaxi laa la waxoon lan la waxoon. maam xaw ma nan kii njoxe yoxe laalo ah. waxoon na ko fi <laughs> du noonu de bul yàq turu jàmbur yi maam yaxi laalo yaxi laalo ah. waxoon na ko fi dëgg la loolu yëpp dëgg la mais problème Kouthia bi laa wax loo ci xam kan moo juum xam nga Kouthia dafa juum rek léegi Selbé léegi yow looy ñaan lan ngay ñaan. nga xam ne nag maa ngi ñaan euh, ministre euh, nu mu tuddati sax mm-hmm. euh, ki nga xam ne mooy chef avocat yi comme Bassirou Guèye. procureur ngay wax. Mm-hmm. maanaam maa ngi koy ñaan mm-hmm. mu téyel ma ndaw soosu au lieu de téye Kouthia. nañ téye ndaw si ndax xëy na Kouthia yàgg na ko wax te génnut. waaye yow léegi lu tax nga bëgg ñu téye ndaw si bàyyi Kouthia waxal rek. yaa ngay démarré problème yaa ngay démarré. du dëgg. xëy na moom la mu ñàkk Kouthia moom moo tax. waaye léegi loo xam ci Kouthia. te Kouthia c'est notre frère. Kouthia xol bi rafet na. xëy na wax ji. humour bi muy def rek moo tax. mais am na loo xam ne tamit euh, Kouthia. maanaam su ko buggoon a génn génne na ko bu yàgg. xam nga duñ ci ànd ak Kouthia. ndax baat bi baatu Kouthia la. Mhm. xam nañ nit kii suñu mhm. frère la mhm. vraiment. mais dafa am loo xam ne maanaam euh, ndaw soosu. na ko procureur jël ne ko ràpp ci kaso bi. waaw nañ waxante dëgg dara mënu ko justifier. yaay booy Selbé léegi ci diggante. ñi mu tudd ñëpp Amina Poté Pape Cheikh Diallo Viviane lan nga ci wax. góor jigéen boo xam ne kenn gisu ko. génnewuñu wuñu vidéo mm-hmm. muy Pape Cheikh Diallo kenn gis mësta gis vidéo Pape Cheikh Diallo. Mm-hmm. Viviane mi ñu wax ne lesbienne la kenn mosu mm-hmm. koo gis ak jigéen mm-hmm. Amina Poté kenn mosu koo gis ak jigéen euh, c'est ay wax bu ñaaw rek la mm-hmm. moo ñu koy ñaawlu nag en tant que jigéen Amina Poté ma yaayam Viviane c'est ma sœur yaa ngi dégg Pape Cheikh Diallo c'est mon fils macha allah am na loo xam ne rafetul kenn du ci ànd ak Kouthia loolu yëpp dëgg la mais Sénégal nga ne na meloon ca fan temps amul loolu suñu temps boo ma saagaa ma xeex yow kenn du ma atte mhm. maa ngi fàttaliku sama temps suñu temps xale boobu ñun amaguñu seize ans sax xam naa ay douze ans treize ans kooku gaañu na yal na ko yàlla xare àjjana mais dañoo nekk dañ doon def yend bu amee nit ngénte bu amee dañuy teg Youssou Ndour Mbaye Guèye jooy jogomaay mhm. di ko fecc di fecc lu neex ñun loolu lañu xamoon réew mi dafa neex vraiment waa léegi ñu dem Serigne Ngagne ñoñoo mii di ree rek da ngaa mënul wax ci moom waa léegi est-ce que doo dem ci moom nga ree ko ah ñoñoo ñoñoo li ngay ree lan la ngay mel ni ku yaltu matt noonu ngay ngakk-ngakk ci kaw nit ñi yow lan la xoolal ree ji ci boppam day dàkk ree ji na arrêté na ree ji dàkk koo ree mu leer rek waaw daa ree rek <laughs> <laughs> Había subido la maricón triple